Mor Thiam ñu gën koo xam ci Pape nekk secrétariat association des maîtres tailleurs au nom abrégé ADESMAT ñu bureau ADESMAT moo taxaw ni am na Fallou Mbow Bill président ADESMAT vice président Modou Lo secrétariat Pape Thiam adjoint secrétariat Thierno Seck Baye Ndiaye trésorier Ibra organisation social euh, Ibra Ngom organisation Serigne Modou superviseur Fallou Mara plus Xaali conseil président ah. ñoo fi teewoon tey ñëwoon fii ci sous préfecture bi pour doon fi indi suñ contribution ci combat bi c'est une pas première nak pour indi won ay benn lowu mille masques nuyo ko préfet xamlé ko né lool moy suñu début combat ci euh, Covid 19 bi ah. non ci ci Covid 19 mom c'est la première fois ñu ñew sous préfecture indi fi ay masques euh, offert ko euh, sous préfet bi gratuitement. xëy na amoon nañ ci yeneen zone yu ñu ko doon may di ko may civil yi ñu koy masol ak yooyu mais ci autorités yi moom euh, tey mooy bés bu njëkk ñu ñëw ci ñoom. c'est parce que on a pas les moyens amuñu ay moyens ak diw. di ko def am na ñeneen ñoo xamante ne nii euh, ñu ngi jàpp ne am nañ ko ñoo ngi koy def ñun nag li mooy suñu métier ci la ñuy gagné marché malgré que ne moment bi ñu koy def nii ñawatuñu yére bu nit sol parce que kenn ñawlootuñu ay yére mais nag on a trouvé les moyens de ay masques ñëw mën leen ko indil ñoom ñu sol ko ñu mucc ci tawat bi. effectivement ñaar la am na yu nga xamante nii mën nañ ko ñaw ci mouchoir à jeter yi yooyu bu dee à jeter dañ koy sànni mais bu nekkente ne popeline yi la am ci avis docteur wax nañ ne buñ ko fóotee boo ko solee quelque temps mën nga ko fóot après boo ci jaaree ak fer bu nga xamante nii am na benn degré bu ñu bu ko fer bi amee après day rey microbe bi waaw à condition que nga koy fóot di ko leen la ci sant comme diko ko passé waat ak fer bu tàng waaw prochainement bëgg nañ dem à la police ak euh, gendarmerie par exemple yóbbu fa calculo def tamit suñu contribution ak lepp lo xamé ci soxla wat nañ ko mu jëm ci li te ñun ñu mën ci def ben jéego tamit par nañ ko def ko ci. di dama leen di gërëm parce que li ñu def ni dañ koy rafetlu ay ay xalé lañu mais xam nañu ne si euh, li leen yalla may muy xel ak mën-mën amna lo xamné war nañ ko mëna duggal dugal si si si xeex bi masque yi dafa dafa nek euh, lu am importance ci jamono xex bi ndax fi ñu tollu ni sol masque ak tok sa kër loolu la xex bi laaj te ñoom donc ils l'ont bien compris donc euh, dañ ci am euh, satisfaction di leen di leen ñaax encore. xanaa di wax ni rek ñu ngi gërëm waa ADESMAT donc ñëw nañu andi matériel bi andi ko dajanteeg juste préfet du département ñëw teew ak représentant maire ak même commissaire ñu ñëw teew si waaw médecin chef bi tamit ñëw teew donc ñu ngi gërëm di sant rek euh, maître kii tailleur yi association tailleur yi te Fallou Mbow jité ko di wax ni masque yi ñu andi ñu defar ak seen bopp loolu la ñu doon xaar si parce que loolu moy résilience résilience dafa am solo parce que xex bi euh, askan bu nek moy xol pexé bopam pour di ko xexé eh, jangoro bi waru ñu fi tok tay ji di importer ay ay ay ay masque waaye suñuy tailleur xarañ nañu yàlla may na leen Sénégal yàlla daf ko may ay tailleur yu mën a ñëw macha allah sur le plan international. ñoom ñoo dajale andi ñu 1000 masques 1000 masques lañ fi andi pour jox ñu ko pour ñu ñun tamit ñu si jàppale chef de service yi. parce que service yi bare dañuy ñëw dañuy suñuy service yi day ñëw dañuy laaj ay masques donc léegi lii daañ leen ko jox.